liggéey rek. tey nga ñëw ci open presse caat bu waalo. tey nga ñëw ci open presse caat bu waalo. lan nga koy wax ak combat bi mu jëm. waaw Maodo dañuy sant yàlla ah. euh, sant euh, waa écurie Waalo baax a baax ak ko amateur làmb nga supporter nga di nuyu suñ président euh, CNG muy suñ Pape Birasène ñëw ci open presse caat mu nekk sama rakk. sama waay sama lépp mu préparé combat am waa prépare na combat mu jëm ci bis bu mag war a bëre ci bis bu mag te ki muy bëreel ñëpp dañ ne caat moo ko raw ci làmb lan moo tax caat jël waa waaw xam nga caat ay adversaire am ñaay dañ koy daw parce que dafa nekk mbër moo xamante ne moom du toog moom bu combat am jeexee rek bu ñëwee écurie bu entraîné ba dugg na ci àll bi dem bëri wala bu mu am adversaire problème lay doon moo tax muy mujjee retourné encore jël ki nga xamante ne waru ko jël waaw mais làmb lamb la parce que ku dem ba jël rek am na fu mu yaakaar pour daan la. ñu gis ne Lac ci image yi nit ñi gis Lac de Guiers a ngi ray booy yi ci entraînement ak xeetu entraînement bi nga Lac de Guiers booy yi loo bëgg ci booy yi. waaw sant yàlla parce que lépp loo gis waxtaan la dama ci waxtaan ak sama coach fi mooy mooy Arona Sall waxtaan ak moom mu ne ma ma laaj ma ne ko waaw mu ne ma jëlal ma booy suba si nga tegal ma leen lu métti na leen te bu leen kon donc ci loolu laay woy li may teg sama bopp teg gu ma leen tiercé bi lu toll nii parce que xam naa ne su ma leen ko tegee mën nañu gaañu mu dama ko mujjee xaaj xaaj naa ko ba muy quatre fois mën leen ko jox ñoom pour ñu mën ko utiliser. Lac Gueye li ngay teg booy da ko xaaj quatre fois. barki yonent yàlla Muhammad dama ko xaaj quatre fois laa la de pour moom ñu mën ko attan te gis nga sant yàlla ñaa ñëw na fi Jackson ñëw na fi giri tamit ñëw na fi xam nga la. Forza ñëw na fi. ñëpp dañ leen di Lac de Guiers entraîné ñëpp a daan. lan la lan mooy secret Lac de Guiers ci biir. secret bi war naa leen ko parce que wax naa leen ko nee naa leen ak loo leen mën bëre bëre bëre bëre da ngeen ci boole entraînement yu métti parce que munoo mën bëre bëre nga bañ a entraîné du la fay il faut nga liggéey liggéey yu métti man su may taxaw naa leen man damay liggéey liggéey métti duñ ma gëm parce que la may daj wan naa leen ko te bu may dem ak ñoom dama leen di wan ne gis ngeen am série ba ak ni dama koy def te ñoom ñëpp dañ ciy gis seen bopp ñu ngi koy liggéey daal yàgg rek rek coow li bari lool ñu naan Lac de dafa tàppir rek ñi naan nangam nangam sa digganteeg rek rek laa bëgg nga ñëw ci. waaw foofu doom day bëgg naa la ci tontu nag bëgg naa la ci waxtaan ak yow ba mu neex mais am na loo xam xamante gis nga nit li ci gën a neex ci àdduna mooy respect dans la vie ah boo bëggee bëri nit ki respect respect mooy mooy lépp gis nga man fu ma toll dama ci soox soox di jox samay mag yëpp cër respect dafa baax ci doomu aadama. da ngaa rayante ba yegg si fi nga yegg waaw dama rayante jaar yoon bu métti yoon bu lëndëm ñuul kukk kenn taaluma lamp mais nag am na loo xam ne duma ci commentaire ak booy bi yaa ngi dégg du ma ci commentaire ak moom ndax du ma moromam. boo commentaire ak moom sax da lay yab. non daf may yab loolu la ciy bañ. dafa góobu yab non non non déedéet. daal. lan moo tax booy bi bàyyi ñëpp sax ciblé la yow. ah c'est normal ñun nelaw ñu nag waa Guèye ñun xam nañ ba fu mbëgg a teg tànkam nelaw ñu de fa mu bëgg a teg fa a tànkam xam nañ ko. fan la bëgg a teg du ma ko wax waaye xam na jàpp na nelawuñu rek nelawuñu rek ah, wallahi nelawuñu am na yóbbul lañ ko avance boobu mais nee du ko laal góor li ma la de nelawuñu centimètre kon nga yóotu gaynde fekk lapin nga bëgg yaa ngi dégg mën nga yootu gaynde fekk segg nga bëgg mën nga yootu gaynde fekk doom ja nga bëgg waaye ah mu ngi noonu nag waaye nelawuñu nelawuñu centimètre wallahi nelawuñu centimètre waaw ah, mais yàlla baax na waaw ak tafaatin tamit niñ ci ne so Lac de tafaatin sori nañ ci loolu ba li tuuteetee mu taxaw sori nañ ci wala taxaw na. waaw xam nga affaire tafaatin bëgguma nekk ci commentaire ba balaa ñoo yaakaar man maa ko soxla maa ngi gis ant coach am xaw ma coach am loo xam ne mu ngi def benn sortie keroog euh, man waxuma dama soxla tafaatin dama ne dans la vie na lu ci gën a neex mooy revanche parce que man mii di jow topp naa ci ginnaaw Eumeu Sène ba sonn pour mu jox ma sama man maa soxla Eumeu man maa dem laaj ko na ko jox taxaw ñu bëre yàlla may ma ndam ci kawam kon donc du ma taxaw dinaan Tapha Tine may la kaay kaay ma kaay ñu bëre ñun ñaar mel ni moo ma raw ci làmb. mais combat boobu amateur yi ko la. waaw amateur yi di ko ma ne man mënu ma bañal amateur yi dara amateur yi ma leen bañal dara waaye du ma taxaw naan Tapha Tine may la sens parce que ci làmb bu ma ko rawatul mënu ma raw. voilà te booy ñaar da leen a boole. mu ngi loolu mooy coow li. ci kan la yàqoo kon ci Tapha Tine la yàqoo. non làmb mënu déedéet mënal lu nekk mënal xeex mënal bëre mënal lu nekk mais du yàqoo mukk ci Lac de Guiers. ndax laat déedéet. da ngaa xam sa bopp. damaa xam man maay kan xam naa qualité yi ma mënee wallaahi lamb ji ba mu daj laa rafet boo dee génne trois premières yi trois premières bu mu nekkul P nekk deux wala trois loolu leer laa la wax. ñu bari ne Lac de Guiers mu mag mi mu nekk ba pare di ray boppam ci entraînement ni ngay entraîné ci Lac de Guiers ci entraînement am. te Lac de foo ko fekk ci état lay nekk. waa mais sport bi ñuy def sport individuel la benn nit bokkul ak euh, match bokkul ak basket bokkul ak handball sport benn nit la yaa ngi dégg te sport benn nit chaque jour que jëfee fu la war a fekk dafa war a fekk nekk ci état man sam bopp euh, euh, ragal naa sax ragal naa sax dem stade sax samay fan sa xool ba na pare woo man dama bëgg chaque jour que jëfee rek samay fans bu ñu ma xam na la dëgër mi pare kaful foowul réewul billaa walaay kaful foowul réewul waaw ak Bombardier pare nga pour bëreeg ñoom Bombardier pare nga pour bëreeg Bombardier ndax ñoo gis sa biir carrière bëre nga ak Yékini bëre nga ak Eumeu bëre nga ak ñëpp te mënoo bëreeg Bombardier sa digganteeg Bombardier lan la waaw sama digganteeg Bombardier nem si yàlla mamma si euh, euh, dafa am couleur yi moom moo sama turandoor Lac de Guiers numéro un maa ngi koy nuyu waaw maa ngi koy nuyu en passage Lac de Guiers numéro yaa ngi dégg ñoom euh, ñu séqoon euh, euh, teraanga boo xamante ñoom seen diggante la woon ñu dem ba maag sama diggante ak Bombardier nekk loo xamante ne tey mu ñëw sama kër ñu toog waxtaan àdduna du neex ba mu bëre yow man tamit pareil parce que tamit maama moom moo taxoon ne àdduna bu mu neex ba ngeen bëree kon donc loolu noonu dafa nekk li nga xamante ne te yaay Bombardier sañu yaay la xam nga la moom loolu moom bu am darul mu sam sax parce que yaayam sama yaay la waaw kooku sama yaay la sama lépp la. Lac de Guiers Ama Baldé. waaw Ama duñ bëre ñun ñaar wax naa ko 1300 fois. ndax waa waaye moom bu taxawee na bëgg na bëre ak Lac de Guiers mënut a bu taxawee moom ci boppam mu wax loolu ah Lac de Guiers borom mais nii nii nii Lac de Guiers bëréwul ak Ama sama rakk la sama frère la sama gaañ la maa ngi xool sama diggante ak suñu papa ji yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana yàlla suuf seen i jikkoom jërëjëf kontaan naa ci yéen di ñaanal sama rakk ju baax ji Walo euh, yàlla may ko ndam képp ku nekk biir géejawaay leen rek laa di conseil sama rakk yi nañuy liggéey lamb ji kenn moomu ko. ay lamb lamb ji ci loxoom de. waaw mais sant yàlla na booy liggéey rek man loolu rek laa di conseil aw ma leneen lu ma leen conseil lu ñu nañu liggéey parce que lii boo ci bëggee gagne-pain nga bëgg am loo yóbbul sa njaboot doo tëb di nelaw liggéeyal loolu laay conseil sama rakk yi di ñaanal Thiatou bu Walo yal na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Mouhamed di ñaanal képp koo xam nekk na ikiri waalo ak biir géejawaay caat daw da faal wax na ma am na combat ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam xam na ak ku nekk ikiri waalo dinañ na kontaan naa ci ñoom trop vraiment sama xol seet na sama doom ndey nga sama waay nga yal na la yàlla defal jàmm ci barke Seydina sa caméraman yi maa ngi leen di bëggee mais dafa mel ne dañoo xiif nag ñoom waaw dañoo xiif quoi waay toog leen rek